alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana am na buur bu sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo masa wax ne ko tubaab yi fi nekk seenu nguur jeexagul ci réew mi ku fi nekk ku ne danañu la sant lëf nga def ko mbaa nga génn abal leen siiw na inna kullu shay'in xalaqnaahu bi xadri wa ma nunazziluhu illa bi xadri ma'lum wa kullu shay'in 'indahu bil miqdar wallahu a'lam Thank you. sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal